asalaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu xalif général des Tidianes Serigne Mansour sëriñ Babacar Sy Mansour di nuyu sëñ Mansour mi nga xam ni mooy doomam te représenté ko fii suñu biir di nuyu monsieur le ministre Antoine Mbengue mi nga xamee ni kuy jàpp góor bay bu nga jàpp moo njëkk génnee xaalisam joxe pour ñu def lii ba yeboo nga jàpp ndax génnee na xaalisam def ci lii seeni bëggee Touré génnee na xaalisam def ci lii Mandumbe jël na xaalisam def ci lii Ousmane Sarr génnee na xaalisam def ci lii prévoir woon def événement mais dañu xam ni situation dëkk bi fi ñu toll wax dafa jot bu ñu waxulee bu ëllëgee lu xew suñu fot la dëkk bi kenn bi kenn du ko fooy nangu nag duñu ko nangul wax rus kenn tamit Sénégal moo ñu gënal ñëpp bu leen Sénégal gënalee ñëpp da di am fulla Sénégal fulla tey Sénégal nag joxoñ ba joxoñ ko wax ko fépp tey jii ñun ñëpp nañu taxaw loolu ñu dëggal ko mu nekk moom yi nga xam ne lu fi nit wax sa pexe bopp la Macky Sall wax na démb wax na bërki démb wax na bërkaay démb musul changé te xamaluñ ko wax di changé xamaluñ ko wax di jaar ci suuf moom si wax ba mu demee Tamba mu ne bu leen wax Macky Sall ne am na deux wala trois wala am na plan B plan C aw ma B aw ma C plan A B C D yëpp Amadou Ba la Macky Sall ma ko nit ki nag li mu wax di nelaw di ko wax di yendu di ko wax di fanaan di ko wax di dox di ko wax tey jii leneen lu waay indi man du ma ko dégg man Diop dama lay gëm ne nag fii département bi yàlla ñuy defal sutura ñun ñëpp a ànd dix-huit communes yëpp a laa wax de dix-huit am na ci ñaari communes yoo xam ne PDS ko gagné mais dama ne dix-huit communes ñun ñëpp ñoo ànd tànn la yow Amadou Ba bëggatuñu dégg ñu naan dañuy faal président de la république ñu naan da am mooy de cinquante pour cent challenge boobu lañ jël ne ñun kuy am cinq mooy la cinquante pour cent ñun duñ ci bokk ñun li lay fal ci la ñuy bokk mooy lan soixante pour cent wala soixante li ma bëgg nag mooy yéen laay waxanteel yéen ñi xam ne yéen a bàyyi seen kër ñëw si naaj bu tàng bi toog di ko xaar dama leen di sant ba pare di leen ñaax na di leen xamal ne leen heure xeex bu jotee ku wax jàmm rek yaa tooñ heure xeex bu jotee ku wax jàmm yaa tooñ yéen ay jàmbaar ngeen ay xeexkat ngeen ay nit yu am fulla ngeen te kenn musulee na jàmbaaraam dama bëgg ngeen dugg seen biir kër yi wax ak seeni doom ak seeni njaboot kenn ku nekk boo leen di wax ak seen doom ak seeni njaboot ngeen xamal leen dëkk bi tey jii fan la toll ak lan la ñu bëgg ak lan la ñu bëgg la ñuy yaakaar suba ci Amadou Ba bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jox dëkk bi monsieur président man président rek laay wax léegi dootuma waxte leneen dama bëgg rek yéen ñëpp ngeen taxaw wax ni ñun ñëpp Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou du ma guddal parce que mënoon naa wax ba suba du ma guddal tey du jour boobu lan na leneen loo xam ne du ma ko wax dama koy denc rek boobu biir la ñu denc ko ba heure néeg ñu waxtaane ko maa ngi gërëm ñëpp di mu monsieur le euh, président maa ngi gërëm nag Coura Macky yéen waa Tivaouane damay leen di gëmloo ni Coura Macky sama xarit la dafa ñëw tey ne moom mënut a ñàkk a fekkee meeting Coura jugal taxaw. en tout cas ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum jërëjëf.